coowal yàq ëmb ci lu yoon ñu di ko dippee avortement clandestin mu ngi wéy di indi jiixi jaaxa ci penc mi fii ci Sénégal looloo waral ay kuréel yu mel ni bile ëmb taskatu xibaar yi yëngu ci mbirum pàcc ànd ak ñi koy jàppale ci liggéeyam taxawal benn gëstu bu yaatu gëstu bile wane na ne téeméeri doomu aadama yoo jël fii ci senegal ana ñaata ñoo ànd ci yàq ëmb ku jigéen kii nga xam ni dañu ko siif walla way juram wala ku bokk ak moom moo yegg ci kawam ci noonu ñu teewlu musaa Sall moom mii di directeur cabinet cabinet Continuum et Ipsos di kuréel gi def gëstu gile. jàngat nañ ci euh, liggéey bi ñu def di laaj sénégalais seen xalaat. si li ñuy wax avortement médicalisé bu fekkee ne ëmb bi dafa jóge si euh, viol walla inceste walla bu fekkee ne ëmb bi ku jigéen ki yor mën na ko lor mën na ko faagaaga li ñu jàngat mooy su fekkee ëmb bi dafa mën a faagaagal ku jigéen ki ko yor Sénégalais nénañ d'accord nañ ñu def avortement manam 76 nénañ waw lool nañ mun d'accord nañ si buñ leen si tégalé budé ëmb bi man na def ba nit ki nga xamné ni moko yor ku jigen ki tagalé ko sagom wala xélam nénañ mun nañ ko nangu mais lim bi wàññeeku na jóge na ci 76 ñëw ci 60 pour cent bu ñu leen laajee est-ce que mun nañoo jàpp ne mun nañ def avortement bu fekkee ne xale bi dañ koo sakku wala ku ko jege doon mbokkam ak ci kawam ba mu jële ëmb ñu ci ëpp d'accord yi 52 pour cent cent du moins nee nañ ànduñu ci ci fànn boobu maanaam fukk yooyu waaw ànd ñu si si ñu def avortement bu fekkee ne ëmb bi mu ngi jóge si viol wala si inceste donc loolu la chiffre yi sondage bi di wane. waaye ci ndaje bi ñu amal tey jii ci suba si ndawal buur teewe woon na ko ñu di ko dippee aadama Sanokho moom ma ngay liggéey ci direction bi yëngu. Euh, ci wérug yaay ak dom ñu gën ko xam ci direction de la santé de la mère et de l'enfant avortement clandestin liñ koy recevoir en général dafa bari ci suñu urgence yi parce que dañuy ñëw ci fànn di nàcc te loolu day indi deeteelu yaay ak doom donc loi bi ñu nar a vote ñuy en tout cas ñuy xeex pour ñu voter ko sur avortement médicalisé day indi sécurisation des soins mooy que nit ki bu ñëwee def ko ci anam yoo xam ne leer na te sell na du ci ñàkk bakkenam ndax fi ñuy wax nii dinañ def ay activités yu bari dinañ def ay stratégies yu bari ministère bi di ko def mu am xaalis bu bari buñ ciy dugal pour en tout cas wàññi ndetteelu yaay ak doom mais dañoo gis ne ak avortement bi te parce que jeunes yi lay gën a jàpp te avortement bi li muy indi mooy hémorragie di indi ay dee dee yoo xam ne mën nañ ko duñ ne du ndogalu yàlla en tout cas mën nañ cee xarañ ba nga xam ne dee yooyu du am donc ñuy ñaan vraiment ñëpp jàpp ci pour avortement médicalisé bi parce que dina dem ci feuille de route ministère de la santé ci plan national de développement social et sanitaire bi def que en tout cas deewu ndaw yi dina wàññeeku dee yi ci nàcc-nàcc dina wàññeeku et donc nombre décès maternels ak complications yi muy indi dina wàññeeku ci réewum Sénégal. Ah, bi leen ndaje Alassane Cissé mi njiitum taskati xibar yi yëngu ci walum wér ak wérle jël na fa kàddu waaw ñun nag waa AGS dañu bokk benn kuréel bu ñu woowee task force nga xam ni dañuy euh, tàggat population yi ci mbirum euh, wér-gu-yaramu xale yi ndaw yi ak ci mbirum avortement médicalisé euh, bu fekkee ne dañu sàkku xale bi wala bu fekkee ne baay bi moo sàkku xale bi bu loolu amee loolu lu metti la xale biy judd foofu du am baay këyit sax munu koo am ndax mënuñoo wax kan mooy baayam yooyu nag yu metti la. moo tax ñun li ñu wax mooy ñaari camp moo am camp ñi nga xam ne dañuy sàkku xale yi kaa yi nga xam ne bàyyi yi nga xam ne dañuy sàkku seen doom te ñoo ñu duñu mës a ànd ak ñoom ñun ñi ñuy àndal mooy victim yi xale yi tuuti yi nga xam ne dañ leen di sàkku ba loolu leen ci am ñu jàppale leen ba nga xam ni loolu di leen daal ñu xool nan lañ koy mën a moytoo waaw ñun daal loolu mooy suñu taxawaay. sondage bi ñu ko defee ba noppi dafa wane ni. 42 euh, population d'accord nañu ci avortement médicalisé bu féké ni dañu sakku xalé bi wala bu féké ni bay ba nga xamné dafa sakku doomam lool day wone ni euh, du majorité bi waye li tax ñuy yegg ci majorité bëreetul donc li kay mëna indi moy nga sensibiliser population yi wax leen lan moy sakku bobu ak xalé bi juddé ci sakku bobu nan la nor démé nga xam ni kenn du ko respecté kenn du jox cëram lool motax tax dañuy euh, continuer de sensibiliser population yi bu rombee étape bi ñu toll mooy euh, ñu partager li nga xam ne am ci sondage yi dinañ dem ci population yi xol tamit média yi nga xam dañu and ak ñom pour sensibiliser yenen population yi ci mbirum sakku ñi sakku xale yi te tegul ci yoon